parce que jënd na avion cool ne gaañu waaj pare bu ñu ñu ne jënd na bateau de plaisance mooy gaal gaa gaalu noflaay gaal gu ñu jël di dem noppi wala waaye gaal goo xam ne su sonnee ba sonn daal dugg ci ñu dawal wër gore mu mu noyyi eeru eeru géej bi daal di dellu si ñi naan 3 milliards ñi naan 6 milliards ci jamono jooju nga jël suñu xaalisu réew jël ci ay millions wala ay milliards yépp sénégalais yi mel ni ay xar naan maa ngi leen yóbbu Kaffrine maa ngi yóbbu maa ngi leen di yóbbu Fouta loolu mooy irresponsabilité Macky Sall li mu def c'est un crime contre le peuple sénégalais irresponsabilité incompétence ak déni la boole moo tax man dama ne wax naa ko depuis longtemps bu ñëw rek day yokk ci bi fi newoon Macky Sall n'est pas légitime à diriger ce pays parce que su doon dafay yem ci incompétent rek ñu ne garaw mënul waaye bu ci boolee nag euh, froideur ñàkk yéeg sénégalais yi ñàkk a weeg yi boobu problème bi day gën a garaaw ba tax nag lii lépp ñu wax nii da ciy boole yeneen ak yeneen yu wane ni Macky Sall moom mbirum mbirum Covid bi mosu koo intéressé parce que bu leen fàtte ni ci jamono bi sénégalais yi jaaxle ñu ñu ñu tiital leen ba kenn ñemeetul. ne leen kenn amatul génn au delà de kenn amatul génn te takkoo masque te loolu yépp di woon mesure yoo xam ne lu ñu mën a dégg la tëj jàkka tëj église tëj tëj tëj tëj ci jamono jooju moom mi ngi signé ay décret signé na fi décret honoraire joxe ay xaalis yoo xam ne ay politiciens kese ñu séddoo jamono jooju lañu ñu am les rapports nag ak keneen ak keneen yu gën a scandale ci ni ñuy euh, ni ñuy randale xaalisu réew mi jamono jooju la am rapport bi nga xam ne gën na ci distribution aide alimentaire bi jamono jooju lañu am ay complot ñiy prépare contre des opposants ba mu àndi fi li mu fi àndi ci réew mi jamono jooju lañu am sénégale yi jaaxle nañu tiit nañu nelawatuñu ñoo politiciens yi li leen intéressé mooy mburu ak soow cest dire même seen façon de parler mi ngi renvoyé à la jouissance noos mburu ak soow poñse ay wax yu ñàkk fayda te bañ koy def dañ ne woon xeex Covid moo tax tey Covid daa ngi ni takkar naa si anañu kii gisuñu ko kii ñemewul wax mburu ak soow mooy seddoo xaalisu réew mi ci jamono jooju la ñu gis mu voté fi ay loi yoo xam ne ñépp xam nañ fi mu jëm loi ne sénégalais yi léegi ku ne miir terroriste nga daal di modifier code électoral bi pour gën a mun a xañ ay sénégalais seeni àq pour ñu mun a taxaw jàmmarloog moom kon responsabilité Macky dafa rëy sañ naa sax ni il la le et unique responsable de ce dans ce pays moo tax bu ko kenn ak essayé absoudre may wax sama grand frère sama xarit docteur Seydi suñuy wax ni mag Macky moo responsable lii moo tax la gestion politique catastrophique de cette crise personnel médical bi c'est pas la gestion médicale et technique ngàcce gaalaama suñu personnel médical kenn mënu leen fay liggéey bi métti na risques yi bëri na waaye accompagnement minimal bi ñu waroon am am amuñu ko te ñoom ñëpp xam nañ ko ku ci wéet boppam wax ko koo ci wéetal mu wax la ko kon ñun nekkuñu ci politique politicienne ba tax nag lii daf ñoo àndi ci constat bi ñu wax mooy situation bi mbokki senegal situation bu garaaw la du situation bu tuuti état bi démissionné na état bi lajj na état bi wane na cuuneem waaye ndax dafa war a tax ñun ñëpp ñu démissionné déedéet parce que du état bi la bakkanam di rot waaye ñun ñii sénégalais suñu bakkan di rot bu kenn nga la waay weddeeti feebar bi parce que kenn ku ne ci ñun am nga ku la jege ku mu dal kenn ku ne am nga ku mu jege ku bakkanam rot man mii de semaine passée bële rek am nañ ci ñaar ci suñu biir parti te kenn ku ne am nga ko kon buñ ko sàggane buñ ko néewal parce que feebar bu am la te day reye te anam gi muy reyee moo métti ndax di ñàkk ñàkk euh, ngelaw goo noyyee sa poumon di wër ngelaw goo noyyee nga ngay suffoqué ba jaare noonu dem loolu dafa métti kon dama lancer un appel à tous les sénégalais bu ñu topp irresponsabilité état su état bi irresponsable nous le peuple nañu responsable te responsabilité boobu fa may jaar mooy njëlbeen bi ma njëkk a jaale famille yi nga xam ne ñàkk nañ ci ay nit ndax métti na torop massawu ñi mu dal te ñu nekk tey ci ay situation yu métti ci hôpitaux yi waaye du ma yem ci wax li nga xam ne mooy responsabilité Macky du ma yem ci wax lan mooy lajju nguur gi su dee mënuma cee boole ay proposition parce que dama leen wax ci njëlbéen ba ni li ma fas yéene waxtaan ak Sénégalais yi mooy tey man su doon maay président la république naka laay gérer situation bi bi bi bi ñu ñuy dund li yàqu yàqu na irresponsabilité bi ñu am ñoom tax na sacrifice yi sénégalais yi defoon yépp fi mu ne nii nen na parce que dañu defoon sacrifice ñu tëj nit ñi laaj ñu suñu xaalis ak yeneen ak yeneen personnel médical bi lu ne mu daj ko ci ba ñu dem ba doon am ay un cas zéro cas yu demee noonu loolu yëpp tey nañu jàpp ni nërmelu na kon lan moo ci des la may wax ma du solution bi li tax du solution bi mooy benn boroom xam-xam yépp nee nañu ci réew yu mel ni suñuy réew confinement bi mënul am résultat parce que kër yoo xam ne boo fa demee di nga fa fekk juróomi nit fukki nit fukki nit ak juróom kër googu ci boppam mun na doon li ñuy wax cluster mooy moom ci boppam mun na doon foyer boo xam ne fa la feebar bi di di développé